bëggoon conférence de presse bi mu doon conférence de presse boo xam ne daf ñuy permettre ñu delloo si wax ji ci l'essentiel parce que loolu dafa am solo mooy ñoom saa suñu demee rek ba sës seeni tooxi dooni feeñ sénégalais yi gis li xew dégg ngeen démb li xew ci terre bi sénégalais bu ñu xamoon li xew ci teer bi yépp xam nga gars yi itam ñu ne parce que sénégalais yi léeg dafa neex a nax damay ragal ni niñ doon naxee suñuy maam nee nañu tubaab bi bi mu ñëwee bëgg am jàpp jàpp suñuy maam ay jaam pakoti yi la leen doon naxee pakoti yi pakoti yi mooy lan ay seetu la doon andi ay yu kenn xamul seetu lañ doon jëndee jaam dafa mel ni ba léegi loolu moo am tubaab bi ni mu ñuy naxee mooy day ñëw rek jox ñu benn affaire ñu naan wii gis ngeen suñu teer bi gis comme teeru pari mais teer boobu naka lañ ko amee lan la dikkee Sénégalais yi. est-ce que ñoo ko moom kan la kan kan moo ci ëpp lu mu ciy gagné fi mu toll nii loolu suñ ko laajal suñu bopp rek ak luñ ñu mënti àndil les première question yi ñu war a laaj mooy lii naka lañ ko amee est-ce que baax na ci réew mi waaye bu dee liñ la defaral yaa ngi dem di ñëw waaye la ciy dugg la ciy la ciy feeñ ci njëriñ yépp tugal la jëm ñoo ko moom ñoo ci am bénéfice ba pare nguuru Sénégal obligé di ci dugal xaalisam. noonu la amee ci air air Sénégal bi ngeen gis su air Sénégal nguuru Sénégal day obligé di ci dugal xaalisam budget bu ñu nee subvention xam nga mooy lan mooy suñu lémpo man a yow ak keneen moom la ñuy li ci dugal pour TER bi mun a daw waaye ñoom tubaab yi seen société yi ñu am euh, nu mu tudd ser SNCF ak li mu créé fii société bi mu créé fii SETER ak ñoom seen ñoom du ñu ñàkk mukk su jëree ñu jël suñu lémpo di leen fay ñoom dañ leen di fay xaalis mais duñu ñàkk mukk loolu mooy TER bi ngeen di dégg noonu lay amee ci berte bi Air Sénégal noonu la amee leneen ak leneen noonu la amee musiba yi fi am suñ ko doon wax duñ ko jeexal moo nem de 2017 laa bind gouvernement boobu député la ne leen TER bi ne ngeen 500 xaw ma ñaata milliards la man de ma defee sama calcul dina ëpp 1000 et quelques milliards biñ ma tontoo ñoom nangu nañ ni ëpp na 500 milliards dinaa publier seen réponse kon ñu def alal gu toll noonu ba pare ñu ñëw naan est-ce que moom nañoo moomuñu waaye li am solo ba leer mooy Sénégal gañewu ci dara waaye day jël alalam di ci dugal tubaab bi ñoom di yóbbu xaalis bi rapport Cour des comptes baa ngi fi dinañ toog ba ci àgg ñu ne est-ce que sénégalais yi am nañu capacité d'indignation parce que pour moins que ça saa nit ñi nit ñi génn ci àdduna bi tey reforme de retraite la ñuy def France gis ngeen ñaata nit ñoo génn France ci sedd bi. sedd bi fa nekk ñaata nit ñoo génn dem manifester de millions nee nañu retraite beeg la ñuy réformer de waaw léegi yow dootoo dootoo liggéey 60 ans waaye dañu bëgg nga liggéey 63 ans xaw ma France yëpp génn tey bi may xëy maa ngi seetaan journal million cinq 500 mille personne ñoo génn Grande-Bretagne nee nañ dañoo bëgg ñu yokk seen salaire ndax ñoom sonn nañ 2 cinq 500 mille personnes waxuñu sàcc nañu alal réew mi foofu ku fa sàcc alal doo doo doo yendu doo yendu. fii nag lu ne mën na faa xew yi dañ koy waxtaan ñaari fan ñetti fan mbir mi jaaree foofu Macky Sall daal di créer ay contre-feux damay yóbbu fii Ousmane Sonko damay def lii ñëpp nekk ci loolu moo tax bi may wax dëccee conférence bi dafa amoon solo pour ñu fàttali sénégalais yi yenn affaires yi waaye tekkiwul ni damaa bañ ñu wax ci lu jëm ci samay mbir lu jëm samay mbir tey la gën a tàng la ma wax ci Kër Massar moo fi nekk ba léegi. ñëpp a ngi préparé quartier par quartier kër par kër makisal li ma wax rek bu bëggee jàmm dina ko am waaye bu bëggee safaan bi dina ko am parce que ñun duñu duñu joxe suñu bopp li may wax toujours xale yi ku leen ne da ngeen bëri fitna dem leen toog muñ leen nangu leen ñu tëj leen kaso bëggu leen bëggul réew mi ku leen ko wax bëggu leen bëggul réew mi ku leen ne waaw ku fi dee yaa perte bëggul réew mi Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm lañu ñu woote ndax xeex yombul xeex dafa metti jàmm ci la lépp xaj kenn bëggul ku la dóor kenn bëggul ku la gaañ kenn bëggul ku la rey kenn bëggul li bokk ci yow am xoosu xoosu sax ci yaramam waaye chaque jour dama ne yonent bu jëlee jaasi xeex dafa fekk mu sës ndax moo ñu gën te moo ñu gën a bëgg jàmm kenn gënu koo bëgg jàmm jàmm dañ koy dox te lay dox jàmm mooy ñaar ñu séq ñooy dox jàmm waaye Sénégal ngay gis ki yor nguur fii léegi mi ngi yor ay kurpeñam di dóor kenn du wax moom kay sàllaaw muñ leen rek léegi mu jeex waaye ñi muy dóor bu ñu nee sonn nañu ba ba ba ba jóg rek ñépp jógandoo nag bu leen fi fitna dëkk bi nii ak nii ak nii ku fi fitna nangam nangam gis nga diine gi ñun ñëpp xam nañ ko am na lu ñu ci xam as peeguñu koy waaye am na lu ñu ci xam as tuut diine ci boppam la may digle fu mu ne génne leen seen kër ay ay alxuraan daf ne génneel noonu seen kër dàq leen xeex leen ci kaw lan bu dee dañ laa xeex yow kon légitime défense sañu xam légitime défense sañu xam doo jóg rek dem songi nit ñun mosuñoo song nit duñ ko mus a def mosuñoo dóor nit mosuñoo saaga nit te ñoo ñuy dóor ñoo ngi ñuy tëj ñoo ngi ñuy saaga ñoo ngi ñuy rey ba barki dem mortala jàpp nañ ko bis bu ne ngeen dégg jàpp nañu nit waa ñi génn taxaw fii ne rey leen Ousmane Sonko ana ñu ñu ngi si dëkk bi di dox mm-hmm. injustice bi ne ci dëkk bi dafa weesu way ba pare ñu bëgg ñu koo teg ñun saa yoo ne déedéet rek ñëpp bëgg laa joxoñ gone yi laay waxal bu leen déglu loolu dañoo toll foo xam ne lañuy la nekk en jeu ci ju fukki weer ak ñaar yi des la nekk en jeu mooy ñu jëlaat suñu des en main ñu jëlaat suñu réew coowal sàcc xaalis jeex fi coowal nangu suñu alal yóbbu bitim réew jeex fi coowal détournement jeex fi coowal clientélisme jeex fi ñu jël réew mi teel ko suñu bopp jël alal réew mi delloo ko ci biir réew mi loolu mooy suñu discours depuis bi ñu duggee ci politique ba léegi ku ñu naw loolu la ñu nawee fukki weer ak ñaar a ci des pour ñu egg ci loola te waxuñu waxu caaxaan de billaahi buñ ci eggee ba yàlla def li muy def ngeen xam ni Sénégal mënoon nañ ko soppi bu yàgg yàgg yàgg bu dee yéene bi am na loxo yi set na te bëgg-bëgg ci réew mi am na moo tax nag yeewi askan wi ñi ngi réfléchir bu soobee yàlla fan yi xam nga ba ñuy dëgmal élection législative dama annoncé woon ne dinañu taxawal coalition bu gën a rëy ci opposition politique bu Sénégal mës a xam defoon nañ ko ndax Sénégal musul am configuration bi ci assemblée nationale mi ngi doog am may wax nag ni dinañu réfléchir benn taxawal benn rassemblement des forces vives de la nation yeewi askan wi doon na ko déjà waaye exclurul kenn acteurs yëpp yi nga xam ne tey dañoo fas yéene taxaw jàkkaarlook Macky Sall ak régime am ne ko lii nga bëgg du fi amee. ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom taxawal benn cadre boo xam ne tey Sénégal kenn du kenn musuta gis lu toll noonu ci rassemblement des forces vives de la nation wax ma rassemblement de l'opposition de des forces de la nation te nag kenn duñu détourné ndax xam nañu seeni pratique déet bul wax ak kii moo la waxoon lii bul wax ak kii moo la saagoon bul ko wax kii moo la tëjoon kaso déedéet ñun réew mi moo ñu ñor suñuy jëmu bopp amatul solo